ginnaaw bi ñu sante suñu borom moom mi ñu may ñu fekkee woon daaw fekke ren ñu ngi delluwaat sant ci bis bu sell bi ak bu tedd bi di bisu korite nga xam ni dañu nekkoon ci jaamu yàlla bu mag muy korite muy woor yàlla faratal ko ñu ko farala farataale ci jullit yi jaarale ko ci yonente bi ñu nekk doon ko def mu nekk bis bu mag korité ren nag yàlla def ci loo xam ni daanaka tawfiq la mooy daanaka jullitu Sénégal yëpp ak àdduna ñoo ñoo waree la mhm. loolu nag sant yàlla bu mag la ndax yàlla rek moo xam def di mu jaar ba loolu mën a nekk bu ko defee ñu ngi nuyu Thiès Ouest yëpp nga xam ni ginnaaw yàlla ñu taxawee fii di wax dégg turu maire ginnaw yalla mi ngi ko jaarale ci askanu ci Ouest donc ni sant askan yi di len nuyu di len ndokkel ci bis mag bi di len balu àq di len bal di ñaan suñu borom yalla ñu yalla mo li jéggal amiin ñu ngi tek cant gogu ak nuyoo gogu ak sargal gogu ci kilifa yi fi rawati na imam yi nga xam ni ak oustaz yi nga xam ni ñoo doon taxawee koor di jité jullit yi ci jaamu yalla yi imam yëpp ñu ngi leen di baral ñu nak suñu imam fi ñu jullé moom imam Yunus Dia mhm. di ko ñaanal yalla gën a guddal fanam yàlla wéral ci rek yalla yagal ko ci njaboot ak ima yi tok ci ginnaawam yëpp diko jappalé ci liggéey ak asatis fi def bayaan ñepp ñu ngi leen di nuyu bu defee kontaan nañu lool lool lool bu ngeen gisé taxaway bi mhm. oustaz Baye Laye Gueye kenn dootu ko présenté ci Thiès bokku ñi nga xamni ñu taxawu jumaa ji donc wa sallam bu baax baax baax ñu teg loxo yeneen oustaz yi intervenir yëpp oustaz Mbaye Gueye oustaz Abdoulaye Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kontaan lool daal ci bis bi di leen ndokkeelaat di leen sargalaat bis bi nag biñ déglee xutba imam li ñu ci gën a marqué mooy li mu fàttali jullit yi di leen jaamu yàlla yamul ci weeru koor weer yëpp weer yëpp weeru jaamu yàlla ndax suñu borom lim ñu fi indee mooy jaamu maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dama leen a bind ngir gën jaamu donc weeru koor nag daf ci am jagle ndax loo ci def ci jaamu yàlla yàlla da koy ful kazalika aussi loo ci def ci nag suñu noonu yàlla da koy ful wala iyaazu billah kon ñu xam ni weeru koor gi ñu nekkoon xëy na yàlla daf ñu ko indil ngir ñu gën a bàyyi xel suñu bopp ngir ñu gën a chargé suñuy batterie ba yeneen weer yi ci des ñu mën a jànkonte li nga xam ni mooy ay galgal yoo xam ni xëy na suñu bakkat ak iblis mën na ko teg suñu kanam ngir gàllankoor bu ko defee loolu nag d'ailleurs weeru koor gi liñ ci amee résultat muy laallakum tattaqun bi suñu borom wax muy taqwa li nga xam ni moom la yàlla wax kuy génn ci weeru koor moom nga war a am je que yeneen weer yi épreuve la war a doon pour ñu xam ba xam examen bi ñu nekkoon ci weeru koor ndax at mi nañu la def bu ko defee ñu gën a góorgóorlu ñun ñëpp gën a bàyyi xel suñu bopp loolu maa ngi koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoom laa séqal la mu politique ci Thiès ak ci senegal ku gis Thiès particulièrement élection yi weesu ni mu demee nga xam ni li ñu gënoon a ragal ci Thiès ku ne xam na ni Thiès ci wàllu politique dafa bari ay yëngu-yëngu ak ay rëng yàlla defal nañu sutura dem ci campagne bi ba mu jeex kenn déggu fi koo xam ni xose nañ ko fi wala dara jam na ko lépp def nañ ko ci jàmm acteur politique yi saafonte nañ daje nañ fi te lépp ci jàmm la ko loolu nag moom la xaar ci ñëpp mën nañ ko def teg ko ci rafetal teg ko ci wax ju yiw teg ko ci mbaax c'est très important parce que ak lu mënti am ñun ñëpp suñu ndomb yi ñu yor day jeex te bu jeexé dañuy déssat nek ay Ceesuwaa wara dajé wat ci ngénte wara dajé wat ci dëj wara war wat ci xew-xew yi wara dajé wat ci jumaa yi donc lañu souralé lolu bu baaxa baax bu ëllëgé bu ñuy dajé kenn mu sëkk c'est très important té yoyu mo ëpp solo jaar-jaaru ko ci kon nak ñi ngi tàllalaat loxo ñëpp mo xam ci maire bi ñu nek mo xam ci espace politique bi ñu nekk Thiès wala ci Sénégal di talal ñëpp loxo xam ni ñàkk a bokk parti wala ñàkk bokk coalition teewul ñu nekk ay Sénégal te ñun ñëpp intérêt Sénégal moo ñu tax a jóg donc bu ko defee loolu ñu gën ko bàyyee xel ñii yàlla teg yàlla leen yàlla jàppale yaakaar yi bari na te yaakaar rek moo tax ñu teg leen fa donc bu ko defee ñu gunge leen ba yàlla mottali seen mission loolu lépp nekk ndamul Sénégal nekk ndamul askanu Sénégal waa cees nag gën ci gisati seen bopp parce que damay wax ne toujours xëy na Sénégal lañ dëkk mais wax naa keroog ni Thiès nag gis na ci gouvernement bi gis na ci boppam mhm. donc loolu nag ñu ngi ñaan doomu Thiès waa yooyu nekk ci yàlla defal leen ndam waaye ñu bañ a fàtte et ça c'est très important donc loolu daal la ñu ci li ñuy wax di ndokkaale ndokkeel ndokkeelaat ñëpp euh, bis bi yàlla nañ ko yàggatee yàlla bu mu nekk suñu mujj korite rafetal yëpp yàlla jagal yëpp ñi feebar yàlla yëkkati leen gën ñu am ay soxla yàlla faj ko ñi nga xam dañu nekk ci buntu àdduna ñu liggéey yàlla jox leen ko ñi nga xam ne dañu wut borom kër yàlla jox leen ko ñun ñi nga xam ne aussi yàlla nattuñu la ñu nekk ci maire yi ndam liñ ci bëgg ak yaakaar yi am ci ñun yàlla defal. amiin asalaamaaleykum.